waaw soble bi de moom xam naa foofu moom euh, Sénégal dafa am phase boo xamante ni li fekk àggu ci rek muy conservation jafe-jafe day am ndax heure boo xamante ni produit euh, local bi mi ngi waaj a jeex te importation bi ñëwagul. Mhm. rupture boobu mooy waral soble bi cher. te soble ak pomme de terre euh, ni ñu koy importer dafa xaw a sensible ndax du bokkut ak 40 pieds booy wàccee conteneur comme marchandise ver wala quincaillerie donc xam naa ni fan yi li tax mu ëpp jafe-jafe mooy local bi dafa dafa quitté te importation bi taxu ko woon mu demee noonu mhm. léegi moo tax soble bi demoon na ci vingt quatre mille vraiment xaw na metti nag ci sénégalais yi ndax benn kilo soble mille deux cent c'est trop loolu it très sincèrement dama ci interpellé waat état bi ñu gën a xool nuñ ci taxawee ba mbayum noor mi ba ci ba ci légume bi des fois day dem ci ci prix yoo xamante ni bu euh, buñ ci seddee néew ji doole yi rek problème day am ndax néew ji doole yi mënuñu leen cee bañ a sédd ndax tamit kilo supame wala kilo euh, leneen bu dee jar jaxute wala leneen ay 1000 francs wala kaani di jar kilo 3000 waaw loolu néew ji doole bu ko mën a bu mën a consommer waaw léegi xam nga sànq euh, li li nga wax ni bon ñi ñi joxe moom lay maanaam ructure bi diggante kii mais mais léegi dañuy dellu saa ci fi nga xam ne ngeen foofu ngeen war a taxawee jàppale fa et le président de la République et le ministre de la de la l'agriculture est-ce que tey jii du du du du du défaite c'est-à-dire que on arrive mm. ñuy ne soble yi mu ngi yàqu ci àll bi parce que loolu yëpp c'est dans dans le compte de de de du ministère de l'agriculture non non yàquwul de yàquwul de xam nga lu mu doon ah. su demee bay jeex su demee bay jeex ndax se soble dafa am ma xaaral tuuti ma leeral la dafa am waaye est-ce doo ko bàyyi mu àggale question mu doon gën parce que man li ma la wax lu leer la du du lu ñu dégg Pape Malick Thiam dam nañ fi benn journaliste boo xam ne dafa demoon di def li beneen cadre li liggéey. Mhm. gis réew yu bëri si euh, gox yu bëri mu jaar mu gis ñu fa jàll ay soble yu bëri yoo xam ne soble yi dafa commencé yàqu. ay nit ñëw nañu fii également ñu yëngu ci wàllu agriculture di wax ne loolu bokk na si luy tax ba du ñu du ñu mënuñu atteindre autosuffisance bi parce que tout simplement dañu mën nañu béy lu bëri mais dañuy obligé jaayaat ko parce que tout simplement amuñu. fu ñu ko mën a dencee. Mm. sinon dafay yàqu loolu ñi nekk ci biir kii bi ñoom la looloo tax ma ne la est-ce que du du du échec de votre part yéen mi waroon trouver les voies et moyens de permettre à ces agriculteurs la que li ñuy béy bañ a yàqu. et que sénégalais yi aussi mën a gis seen bopp si li nga xam ne moom la ñuy xam nga loolu avec le temps euh, loolu nga wax tu as parfaitement raison état bi lépp lu concerné askan wi moo ci war a taxaw euh, lam ca man ak lam ca mënul lépp mu def ko. pour sénégalais yi nekk ci ay bonnes conditions ndax euh, agriculture u Sénégal moyen bi moo amul ba tax na tey ba ci soble local bi noonu su fekkoonte ni tubaab yi ñoo ko moom suñ ko bayee mën na dem ba beneen ñoraat ci kawam mais effectivement xam naa denc bi problème la ba su ñoree xawoon nekk benn quantité dañuy mujj obligé jaay ko njëg ndax soble dinay dem ba jar 150 francs le kilo waaw ah, mais yow miy wër quatorze régions yow loolu war nga ko mën a gis pourquoi gis naa ko laa wax waaw léegi lan moo tax jéem proposer ay solution dama la wax ne la hmm. solution bi da ngay def étape par étape ministre de l'agriculture bi ren mooy euh, première campagne am donc loolu mi mi ngi ciy dox ay jéego mi ngi ciy bàyyi xel parce que aussi lépp loo xamante ni lu engagé agriculture la kere bañ ko joxee ministère bi sax te tawagul ci la taxaw ànd ko ak ay équipe dem ci groupe producteurs yi ndax dem na xel comme def fa tournée euh, ñu ngi ziar bu baax Serigne Cheikh Saliou Mbacke nga xam ne li muy def ci mbay kenn def ko ci Sénégal euh, dem ci ànd ak euh, sëñ Moustapha Lakaram ak groupe producteurs yi ne Sénégal yablewul dafa def déplacement dem xool lépp loo xamante ni concerné na mbay yan matukaay la ci état bi di jël ba tax na budget bi dañ ko yokk ci bëgg améliorer loolu nga wax loolu nga wax moom état bi ñoo ci war a taxaw xool lu ñu ko mën a defee ba nga xamante ni jafe-jafe yooyu. Mhm. day teggiku ci askan wi. Mhm.